ci place de l'Obélisque waajuru xale yi ñoo fay daje ngir nag naqarlu bu baax a baax njàng mi nga xam ne jamono ji dafa daal di salfaaño yéen a kaay gi de las xëy diñu xibaar naan ñu lu jëm ci élection locale yi ak parti bi nga xam ne mooy PDS ak deltu ginnaaw gi nga xam ne PDS deltu na ko ginnaaw loolu la journal bi ñëw di ko faram-fàccee Mayoro Faye daat nay wax ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn waa PDS nag sore wuñ woon ak ay soldats yoo xam ne dañoo demoon guerre te ànduñu ak seeni généraux Marie Sow Ndiaye député PDS daat nay wax ne jamono ji su am na lenn loo xam ne mooy jot Fatou mooy dellu si xam ne mooy PDS parti la bu incohérent yéen a kaay gi di ma ngi wër li xam ne mooy ab premier ministre waaye nag am na ñenn xam ne moom la gars yi njorto les cartes de Macky noonu la ko journal bi xëy fësale ci xët Vox Populi xëy di ñu xibaar nañu ndaw ñi ga xam ne ñoo bokk ci parti socialiste te nekk diwaanu parcelle jamono ji nag li nga xam ne moom la ñuy sàkko mooy ab congrès ci parti socialiste Bamba Fall maire bu Médina ni ki démb daan koy installé moom Bamba nee na bii mooy mandat bu mujj ndax dafa bañ li nga xam ne mooy ñetteelu mandat yéen a kaay gi de Le Soleil xibaar naan ñu élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi def nañu si ay jéego yu maga maga mag ndax am na lu toll ji fukk ak juróom-ñett ci ay commune yoo xamante ni ay jigéen ñoo ko gañee am na si ñaari département tamit ñoo xam ne ay jigéen ñoo ko gañee yéen a kaay nañu Seydina Issa Laye maire bu Yoff daan nañu koy installé nee na nag jamono ji daal ñëwul ci mairie bi ngir nag di dàq ay nit di licencier ay nit wala nag muy toroxal ay nit dafa ñëw ngir nag ànd ak doomu Yoff yëpp ngir ànd liggéey docteur Babacar Diop mi nga xam ne mooy maire bu ville bu Thiès moom tim daan nañu koy installé moom docteur Babacar Diop nee na dina fexe ba Thiès nekk ab dëkk boo xam ne dëkku ngor lay doon dëkku liberté dëkku bañkat une ville universitaire une ville culturelle une ville industrielle une ville sportive inclusive, une ville ferroviaire, une ville moderne, prospère, durable, intelligente kaddu docteur Babacar Diop la yéen a kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu scandale am na ci mairie bu kaw Kaolack journal bi nee na matériel ba lañ fa jëlee ñi nga xam ne ñooy agent yu mairie bi ba léegi kenn fayeeku leen yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ci yoonu Porokhane bi accident bu métte métti moo fa am balu toll si juróom-ñetti ci nit a ñàkk fa seen bakkan yéen a kaay gi nee na am minicar ko bis ñoom bëkkante bëri na fa ñoo xam ne am nañu say gaañu gaañoo yéen kaay libération ne diwaanu Popenguine foofee tamit lu daw yarama lu doy waar moo fa xew ñetti xale yoo xam ne ñoo faatu ceeg lakk yéen kaay gi du l'Observateur nee na ñetti xale yooyu nga xam ne ñoo faatu ceeg lakk ca ki nga xam ne mooy seen waajur wu jigéen maanaam seen yaaye seen yaay nag li ko dal naqari na lo lool loola ndax nag seen yaay ci ñeenti weer yi rek maanaam si la ñàkk waajuramu góor ak waajuramu jigéen si la ñàkk tamit borom këram daal di si ñàkk ma doomam journal bi ne na nag ñetti xale yi nga xam ne ñoo faatu ci lakk gi seen yaay nag dafa génnoon lekk bi mu ñëwee la fekk ñu daal di lakk yéen a kaay gi de l'observateur ak libération xëy nag di ñu ko nettali mu nekk mbir moo xam ne mbir mu doy waar a doy waar mbir mu tiis a tiis yéen a kaay gi di record ak esat xëy duñu xibaar naan ñu Idrissa Gana Gueye ak Abdou Diallo mi nga xam ne ñoo nekk Paris Saint-Germain niki démb nag daal nañ leen di delloo njukkal bu baax baax a baax dañu leen daal di honoré nag tertu leen yi nga xam ne moom la ñuy tertoo buura fi nga xam ne mooy stade bu mag bii di Parc des Princes yéen kaay gi di record xëy duñu xibaar naan ñu état bu Sénégal lu jëm ci wàllum prime yi lu toll ci quatre milliards l'état bi génne fekk six cent millions juróom benn téeméeri millions nga maanaam jege na cinq milliards l'état bu Sénégal séddale ñi nga xam ne nag ñoom la ñu war a jox cinquante millions bi ñu ko xayma dëgg-dëgg nag maanaam cinquante cinq membres la juróom fukki nit ak juróoma yéen a gi nee na joueurs yi ñoom séddoo nañ lu toll ci ñaari milliards yu fekk ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn téeméer ci ay millions yéen a kaay gi nee na Aliou Cissé entraîneur bi jox nañ ko lu toll ci cent quatorze millions garde ñoom tim jox nañ leen